جلالي يا متعالي يا خير والي أجب دعائي يا ذا الجلال يا متعالي يا خير والي أجب دعائي asalaamaaleykum mbokku internetu 24 actu yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su nekk mbégte lay doon saa suñu janoog yéen suñuy mbokku internet ndaxte dañ leen di safoo ndaxte wóolu dafa metti ak confiance bi nga xamante ne am ngeen ko ci seen site bi di 24 actu loolu nag dañuy daal di ñaanal ki nga xamante ne nii Serigne Mountakha Bachir di xalifa général des Mourides ñu ñaanal ko mu yàgg fi lool te ànd ak ak naal bi nga xamante ni naal na ko ngir liggéeyal ko maamam ji di Cheikhul Khadim yàlla ko may ko kattan ak mën gu mu koo eggalee waaye noonu tamit lañ ko ñaanalee mboolem mboolem xalif yi nga xamante ni ñi ngi ci biir réew mi waaye itam mbas mi lëbbe mbim réew di covid 19 duñ ko bàyyi benn yoon dañuy ñaan rek suñu borom daal di ko fiy jëlee ba lépp rek loo xamante ni activité la woon daal di taxaw mën a daal di reprendre ak comme ni mu meloon ñu nekk nag ci woo xamante ni da di weeru mbégte nekk weer bu bëri lool ay ngëneel rawatina ci fukki fan yaak juróom-ñett mu di 18 safar te ku wax 18 safar wax màggal Touba te ku wax màggal Touba wax Cheikhul Khadim ngeen gis ne nag 24 actu boobee ba léegi mi ngi am benn plateau boo xamante ni daf koo duppee waajtaayu màggal gi te boobeeg léegi nag gis ngeen ne ñu ngi ci nekk ak yéen ñu ngi leen di amal ay reportage yu am solo ci dëkk bu sell boobu dee di Touba ak ay interview ci ñooñu nga xamante ne nii dañuy waxtaanee ku tedd ki ak yéen dëkk yi nga xamante ni Serigne Touba moo ko sanc wala mu joxe ndigal tamit ñu sanc lu ko ñu nekk ci nag ci benn boo xamante ni kenn du waxtaanee Serigne Touba wala ngay wax ay jaar-jaaram wala nga wax ay dëkk yoo xamante ni sanc na ko wala mu sanc lu ko comme ni ma ko waxee sànq te doo tudd dëkk bii di njaareem mu boo xamante dafa bëri lool ay ngëneel bëri lool loo xamante ni Cheikhul Khadim def na ko fi mu bëri lool ay mbóot looloo tax nag

Lamine comme ni ma ko junjee sànq gis nañ ne nag mag ñi ñi ngi jàng li nga xamante ni moo di kaamil boobule duñ def dara rek lu dul ànd ak yéen wan leen li nga xamante ni moo xew fii ci biir daara kaamil يا متعالي يا غير والي أجب دعائي صل وسلم على المكلم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 alhamdulilahi almujibi sil xadar man xasana fadlan bi laylatil xadar uh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi gannaaw bu nu santee sunu borom tabaraka wa taala nga xam ne moo nu bind moom nu nuy ay jaamam mu digal nu nu sant ko donc koy sant bu baax a baax tey julli ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam ko yàlla diglee wax ni inna allaha wa malaikatu yusalluna nabihi yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima gannaaw loolu ñuy jaajëfal suñu yaakaari tey ak bu ëllëgee muy seexul xadim di siyaare ñëpp te di leen baalu xaq te di leen baalu xaq ñaan suñu borom boole nu jéggal te di leen siyaare ci weeru màgg wu tedd yi muy weeru safar mm-hmm. kon mel na ni noo ngi nuyu ñëpp daal ñi topp ci télévision bi waaw daal ñu ngi bu baax baax ci nuyoo boobu le mais dañuy gis ne mënuñu waxtaane Cheikhul Khadim ci dëkk yi nga xamante ne sanc na ko wala yi mu sanc lu te doo wax njaare mu bëri loolu ay neneen bu bëggoon dañ nga wax mm, loolu mën nañ cee leeral lu tuuti ndax Sëñ Tuubaa moom bi mu jógee diggante ak suñu borom ay contrat la mhm. daa am lu mu bëggoon boo mhm. moo ko yëkkati woon mu doon ay jéegoom loolu nag la taxoon bëgg ko it mooy moom bi mu jógee ba yam fa ñëpp yem daa wax ak sunu borom dana ko dama bëgg am loo xam ne kenn mësu koo am te su ma ko amee ba noppi kenn dootu ko am mhm. nag ma may loo xam ne kenn mësu koo am te su ba noppi kenn dootu ko am loolu situation ñëwoon contrat mais mhm. bu it fekk na ndax kenn ku ne xam na ne bu dee ci wàllu nguurug yàlla gi ni ñuy doxe li yàlla sédd ab jaam ay mayi may la maanaam li ma bëgg a wax foofu mooy jaam bi lu ko ittee may ci suñu borom rek may mën na koo am kenn ku ne sa itti ci yàlla moo lay may daraje ya nga am waaye yàlla amut lum tale ci am ci ab jaam waaye nag day jaay nit ñi jiitu woon sëriñ bi nekkoon fii di wut suñ boroom doon dox nañ doon doxee ci seen i itte seen diggante ak seen boroom di am ay martaba di am ay martaba waaye li ëpp ci nit yàlla yooyu bi ñu egsee ci ndomba gi nga xam ne yàlla baaxawul di ko takkal ñaari jaam ci kaw suuf benn rek la koy takkal nga xam ne ñaar duñ ko bokk ci nguurug yàlla gi mooy li ñuy wax xutbu samaan xam ne xam ne ñaar duñ ko doon ñin ñu bari ci yàlla ban eggee ko yàlla takkal leen ko danoo daal di yem foofa ndax daa doon daraja ju rëy ci yàlla benn jaam rek ko am fi doon àddina wërngal këpp kenn fay nekk xutbu samaan du doon ñaar mukk duñ ko doon ci nguur yàlla kenn rek lay doon boo ko yàlla takkalee day am yëg-yëg boo yëg ci yàlla bu rëy rëy ndax bu boobaa yàlla da lay xamal ci xam-xam bi muy xam da ngay doon xaritub suñu borom boo xam ne ci xam-xamub yàlla ngay xamee te yàlla wa indahu mafatihul xaybi laa ya'lamuhaa illaa huwa ya'lamu maa fil barri wal bahri wa maa tasqutu min waraqatin illaa ya'lamuhaa wa laa habatin fis samaa'i wal ardi wa laa ratbin wa laa yaabisin illaa fii kitaabin mubiin bu ko defee yàlla da lay dugal ci martaba moomu nga xam léegi xobi garab yi yëngu da ngay xam li ñuy yëngu li li picc yi sab da nga koy xam ruu gi teew ci yow ak ga ca France ak ga ca Amérique dañuy yem balaa yàlla dal dara ci dogalam bi day message bi day egg ci yow yàlla door koo def xam nga foofu nag daa rëy ñu bari ci góor yàlla man fa yegg dañoo taxaw dañoo fereng laay jàpp ni fii kenn mënu koo weesu Seexul Xadim nag moom bi mu egsi duggee Daaru Xuddoos euh, xalwatu mu mujj wi te demegut ci tukki bi booba te saa borom xamal ko ni ko wala yonent bi feeñu ko xamal ko ni ko ndomba googu ñetti weer rek moo tee nga am ko waaye danaa ñaan sama borom mu jox la ko dani ko loolu baax na loolu waaye dama bëgg lu ko ëpp maanaam lu lu gën a kawe loolu moom laa bëgg euh, loolu mooy mooy mbir mi daal di signé contrat xam nga ku bëgg lu kenn loo xam ne kenn mësu ko am wala nga bëgg loo yemut fenn da ci yàlla doo am foo ca yem mm-hmm. zalaltu haabidan xaddiman bi dalil min haama ay shachin ila haama rayin mu ne yàlla ka teral nga ba ci atum ay sas ndax am na li ñëpp am waaye gën a dama bëgg lu kenn mënta am laxasaay gi ma takk ma bala ma koo tekkiwaat ila haama rayin at mi ñuy taxañ déedéet bi dootuma wàcc ndax damaa bëgg lu kenn moo tax te ku bëgg lu kenn mësta am doo wàcc kon man wutatumaa wàcc naa dox rek ba fu ñuy taxañee dénd bi wala li ma bëgg ma am ko boobu nag am na ci ci ci ci li li bi ko yonte bi laajee lam xemmeem ci xolu boppam mooy garaatu badar waa badar ndax kenn ku ne xam ne ñu tàng taarix lislaam xam nañ ne ñooñu seen dara ji rëy rëy la ndax leen ko may ñoon mooy seen pastéef xa ñu xaree woon dara badar ñaq yi doon génn ci seen euh, jë yi seen yaram yi moo gën a kawe ñaq yi doon génn ci fas yi doon war sax moo gën a kawe jëfi doole jëfi wàllu yu kamaal sëñ bi ne moon garaat boobu ni yàlla ca laa bëgg a bokk waaye bi ko biñ ko xamalee ni ko loolu li ko doon maye faat na ndax génn jaamu du ko maye moom jaamu yàlla mënu koo maye bari rakka mënu koo maye julli mënu koo maye li koy maye mooy maanaam nattu nattu bi duñ la teg mukk nattu wàllu nattu bu yonente lañ lay teg nattu bu yonente bi buñ la ko dee teg dana mitti lool lool lool ndax dana mel ni ñaar téeméeri nattu ak juróom-ñett fukki nattu ak juróomi natt nattu bu ci nekk mooy gën a metti fees am xar ba ma yëgg te rendi woo ko mooy tax nga mën a bokk ci ñooñu sëñ bi ko attan naa ko teg ma ko waaw ni ko daal ni yàlla daal ruugi daal bindu ma ko ba nga xam ne mu attan waaye jom jeeg fi diw moom loo ko teg la bu fekkoon badara ko yëkkati woon kon jeewal lay wàññi ko ndax jeewal la binde ni maanaam kenn laa ci waa ahlu badar jeewal la binde ni kenn laa ci waa ahlu badar basarani llahu bi anni waahidu min ahli badin xaafa min il jaahidu yàlla bigal naa may kenn ci waa ci waa ahlu badar jeewal la binde ni wasaltu lillahi mahal muxtaari wa ahlu badin usdihi astaari man bii ma jógee ba tollu jeewal rek léegi maag yàlla ak yonente bi ak badar ñoom laa àndal ñu doon ay gaynde yu jàmbaare kon bu doon wut loolu foofu lay daal di wàññi koo yem fa xam ne li mu bëggoon am na ko da da da loolu da ko sëñ bi ko def sëñ bi day def lu mu am ci yàlla da koy def ab tiiñ jàllaat maanaam li ma bëgg a leen mooy sëñ Tuubaa yi tax li am ci yàlla maam ko ci daa amut fu mu yem yàlla it yem da doon dox yàlla yi dox rek nga xam ne lu yàlla am rek sëñ bi fas na fas na ko yéene ñàq ba ba jot ca moom ndax xam nga bu doon badal foofu lay wàññi ko waaye bi mu tollee foofu na ñu jox ko daraja jooju moo dal di wéyaat wéyaat rek dox daal di jël engagement jóge jeewal waaye nag la ko yàlla waxoo ji yàlla jógu ji mooy nattu yi du du dakk mukk ndax kenn ku ne xam na ne bu dee ci taarix yaakaar naa waxuma nattub gabon moom ak yooyu xaju fi waaye nattub yaari guddi yi Dakaaru képp bu ci Sëñ Tuubaa yemoon doo gis ko yem moom dara ca waaw ndax Sëñ Tuubaa bi mu toog bi mu jógee teewal bi mu yegsee Louga rek booba lañ daal di programme néeg bi ñu ko dugal Dakar nga xam ne Sëñ Tuubaa nett daana ko nettali kër yi ngeen di seen soxna Fat Ja tukki bi waaye bu masaala yegg si day jooy mu ni ko attanoo ko Sëñ Tuubaa li tax mu raw ñëpp mooy bakkanam bi yàlla da ko koo gënal ab jaam bu yegg fii ci yàlla nag moo yombut jaam yu bëree bari bu méttee ñu wàññi ko yonente bi muy xare Badar am na ñett téeméer fukk ak ñett teewut bi xare bi méttee wax na suñu borom mu musal ko muy ñaan ba yàlla wallu Sëñ Tuubaa bi muy tukki àndut ak nu gungewu ko kenn doo leen ni sama bàyyi gunge sëñ Touba wala sama maam fii la wàcc sëñ ma Sàmb wàcc fi sëñ ma Numbe wàcc fi Seex Rafaal wàcc fi Seex Isaa Jenn wàcc fi Seex Moustapha ak Alaaji Fall wàcc fi ñëpp mel na moom moo demoon mel na moom moo demoon kon bi mu jógee Ndakaaru it ñu daal di kon génne gi mooy mbir mi la dikkaloonte bi nañ ko génne tubaab yi bi ñu dajee sëñ Touba nee na ci biir gaal gi ci laa xamee ne ci laa dégg ñu naan Gabon lañ ko yóbbu waaye sëñ bi sax ba ni muy départ Ndakaaru li xamul dëkk bu mu jëm ndax moom contrat bi la yàlla da ko da ko waxoon ni ko maanaam dooni fu ngeen ma jëmee dooni kañ laay wàññi ko dootoo wonk doo sëqat doo jàmbat doo toog tafi cax say loxo dootoo lekk dootoo naan dootoo tëdd nelaw doo doo faat waxtu doo julli te jàppoo doo ñàkk a neefile doo ñàkk a tag bi ab na tudd méttee métti ba tax nga saali dara lu mu lii yii loo ci def rek bi jeex na moom damay daal di bàyyi man yàlla tey waxuma la bàyyi gi rek nga ñàkk waaye tukkil àjjana yan la bàkkaar bi xaj na ci sëñ bi ni ko attan naa ko teg ma moo tax yëpp daa ba ko def fu ngeen ma jëmee daa ba ko wax lay laay wañ ñi ko daa ba ko wax moom dañ naan jógal mu jóg ñu toogal mu toog rek nii rek la ànd ak tubaab bi sëñ Tuubaa ne laa yéegée ni Gabon laa jëm kon tukki bi du diggante sëñ Tuubaa ak tubaab bi déedéet daa am lu mu bëgg ci yàlla yàlla ni ko lii moo la koy may kon il faut mu def lii pour am li lii xew tey moom la bëggoon lii xew tey sax firnde la cee feeñeen ndax bis yëpp dañ ko waxoon bisu Sëñ Tuubaa si kenn foomu ko kon firnde la ju leer naññ ci boppi ñëpp xanaa war na war na war naa dugg ci boppi nit ñi mu daal di dugg ci géej gi moom Sëñ Tuubaa Gabon googu Sëñ ba am na fa juróom-ñetti at yu manqué tuuti yoo xam ne juróom-ñetti at bis bu set bis bu set waxuma la par weer de bis bu set am na nattu bees bu bees buy tege ci moom waaye sëñ bi nag nee na diirub tukki moom da natt naa sama sama digganteeg sama borom 18 safara muy màggal gi heure bu yegsee maanaam dana amaat natt bu yees peq peq peq boo xam ne bisu màggal bi lay dajeel moom te boobu màggal gi boobu wuteegut màggal waaye nee na naa daal 18 safar moom saa yu jotee saa yu jotee yàlla dana ma tegum nattu boo xam ni ndax mooy bis bi mu fi jóge waaye nee na saa yu bis bi saa yu dil fu ma man di nekk fu ma fekk rek dana am nattu bu bees danaa dajeeg soldaar bu soldaar bu bon wala mu yóbbu ma fu ci àll wala nangam waaye nattu moom dama ko yendoo bis booba bokk na ci nattu yooyu rek ci xataa waxtu yi moo tax waaye bokk na ci ñaari nattu rek muy benn bi mooy xay gii bu ngeen génnee xay gii ci biir kër gi gii waaw suñ tuwaa mas na faa mag ñi wër ko ñëpp seex rafaal seex isaa jenn sëñ ma numbe gaa yëpp wër kër gi jo si kar si jolli euh, xasida yi addiye yi bari suñ tuwaa toog ba caag mu ne xudratu ak iradatu nit ñi dañ koy jàng waaye man dama koo lekk daal ne xanaa sama ñaari jotaay yi de ci sama ñaari taati garab kudul woon man dana wuute ci yow mag ñi ne ko ñaari ne sama garab ga woon ca maa yomba di ak mango suñ tuwaa ne def naa fa lu ëpp at moo xam day taw ci sama kaw di naaj ci sama kaw yooyu di ma tang ba doo seen sama jëmm nee na waxuma yëwuma ci loolu waaye tubaab bi daa waxoon mboolem waa Gabon kenn ku ne bu xëyee lu mu xam ci lu bon na ko def Sëñ Tuubaa nee na gis mag moo xam ne du mën dox sax waaye day sukkandu beeg seelam yor ci lu bon la bay xëpp muy so lu ko soob rek waaw Sëñ Tuubaa nee na léeg-léegi ma xëy di bind géej gi duus yàq li may bind lépp nga xam day bind xasida yi jàllu baree bari géej gi duus ni waw yàq lépp mooy fa muy waxee ni bayaxtuhu fil bahri tahta sajara wal bahru musbidun waxaw di fajara bayaxtuhu maa ngi jaayante fil bahri ci géej gi te tusdere ci taatu garab gii ma toog wal bahru géej gi mus bi dun di duusu waxaw li fajari ñi ma wër ñëpp di saay-saay nga xam ne kon ku ku ku saay ba suñ bi tudd sax saay-saay ëpp na bi mu toogaatee mag ñi wër ko kër gi set dañu bàyyeextuhoo fil barri taxta sajara wal barru tayyibun waxaw li barara bàyyi tooxam maa ngi jaan fil barri ci jiiri ji te tasajara ci taatu garab gii buy xay gii ngeen di seen ci biir kër gi wal barru jiiri ji tayibun di aji teey waxaw li barra ñi ma wër ñëpp ñu ñu baax waaye ñenn ñaari jotaay yi xàmmeewuma leen nee na la bee doon naqaree li bii di baax suñu mbéy man yàlla rek xàmmeewuma jataay yooyu kon loolu rek doyoon na natt ba ca des ci natt bi may tëjee ci foofu mooy néeg ba ko suñ mët loo dagana fekkoon ndax kenn ku ne xam ne ne suñ mët loo dagana moo toog ba ci yàgg mu xëy ni waa këram yéen ñëpp dem leen uma ci kenn soxla soxlawuma soxna soxlawuma doom man ahmadu mi daal sëñ tubaa laay seeti feeg gisuma ko nag du ma wàññi ko te booba xamut fu sëñ tubaa nekk de pas-pas baa rëy rek waaye moom booba xamut fu sëñ tubaa nekk at la dox door a gis xëyee na kokki guy bisub talaata nam mu ca géej ga bañ naan xadmaata ba yore dil sa jéewal ak bis ba la soog a seeru bàmba ngir pas-pas ba kon pas-pas ko yëkkati woon bi suñ mat loo dagaa nee ko dëkk sàngam da jàll ko def ba yegg gabon nee na dama koy laajte ba caag rek ñu am tubaab ma joxañ benn néeg ni ma gis yéen néeg ba lee ngay séen de jàpp nañ ni ca la nekk waaye dunda tudde ndax moom am na fa at ak dara te lu ñuy lekk fekk ko fa lu ñuy naan fekk ko fa kon jàpp nañ ni dunda tut moom waaye suñ tubaab du lekk du bind guddi du nelaw bu jëmm yëpp ne selaw mu dem ci paye bët bu bët seetee mu dina wax dal ni kii ku ko gis sax ko la gis ku gis ku gis waaju ko gis su ngeen demee ci boobu bis mu romb leen kenn du toox li tax mooy doomam yi ëpp nay sëriñ seexam yi doy na ñuy sëriñ ay taalibeem doy na sëriñ na ci lii mu di la may boo ko ba xëy la doon nga ni sarax waaye moom boo féetewoo di ko bindal day féetewoo di la dundal soo koy bayal di ko bindal mu sakk ñuy bay di la jox suñu ma doon nee biñ ma joxanee néeg bi dama dikk fekk néeg bi li ko wër lépp di gala na ma yeewu jënd aw ak akub radu ak jeesi bu guddee ba nit ñi tëdd man ma ñëw di gor wuti néeg ba ak a bale waaye yëgut nee na ba ma def ko fan door a yegg si waaye nag seen bi dama koo wër gisuma benn buntu ma mën a jaar nekk te néeg bi tubaab bi da cee dugal suñu buntu bi suñ tubaab nee na suñ mën loo nee gisuma buntu ma mën a jaar nee ma ma man ah néeg bu amul xanaa kenn nekku fi nee ma ci àgg ma ni néegal ma tare ba xam ndax sëñ bi bëgg na alxuraan nee na jàng saaru woon nañ mi ba mu jeex kenn yënguwut mu ne négal ma sikkar ndax sëñ bi bëgg na tur yàlla nee na di néeg bi di wër néeg bi di wax laa ilaaha illallaa kenn yënguwut mu ñu ma jàng xasida ndax sëñ bëgg na yonente bi sëñ la bëgg moom moom yonente bi moom saa yoo ko ci wooy rek wu jot ko li boo xoon ne ku ma nax ci yonente bi sax ma nangu jot ko nee na bi may jàng xasida lam yëpp di mislal Mustafa Muhammadi sirran wa jahran samadi nee na léegi see ci baytu wa wal imaam wata jaa dégg sëñ di bind ci biir mel ne naan hmm. ah. nee na may daw nag di wër néeg bi di baamu bayit boobu nee na nag bàyyeetuma bëy boobu rek wax jeexaat foo fareb loxo delloo fa sa foo fareb doom delloo fa sa loxo nee na may baam bëy bi rek na ba ci ak niig bi def benn bunt waaye bi mu defee benn bunt nag nee na ma duggee maa ngi fekk sëñ bi toog jël ñaari loxo yi teg ko ci bopp bi yor perub kurus bi muy dal mu bokk mu bokk benn kawar gi feeñ nee loxo bi nee na perub kurus bi dal nee na mu tiim bagage yëpp ma loo da ngay bàyyi maa ngi ko xool tuuti lool mi ngi poussière sonn lool nee na lool waaye bi ko joxee loxo dañ ko ahmadu waa dëkk ana seex anta ana suñ mu sàmb ana suñ nangam nee nañu jàmmante waaye cib tënk néeg boobu ba fi suñ bi jógee ba fi suñ bi doon jóge dagee jaga jaga dagana jógee ci la ko woo anta waaye cib tënk ba juróom-ñetti at yi tukki bi jeexee ba yàlla xamal ko ni ko jeex na waaye loolu dañu bàyyi nag taxut woon suñ tubaa ñi li ma bëgg am naa ko maanaam toujours da ngay topp waxi suñ mu toll day wax ni nangam waaye li ma bëgg am naa ko wax ko danaa wax fa mu waxee ni bëgg am naa ko maanaam tukki ne ba ñibbisi mu yoor yor bu mujj bi mu ñibbisee te mag ñoo ñooñee ko gunge woon taxawaat ci taa tefes gi di teeruwaat sëñ Tuubaa mag ñoo ko gunge woon ñëpp taxawaat di ko teeruwaat ñu ni sëñ Tuubaa tey lay mu tudd ci mu dugg ci genn gaal goo xam ni tubaab yi ñu ngi ko tudde rasuliyaa moom la sëñ Musaa Ka naan rasuliyaa gën a rafet ci gaal yi waaye rasuliyaa nag moo gën gaal mu dugg ci moom sëñ Tuubaa mag ñëpp taxawaat di ko teeru bi sëñ Tuubaa ne tëll gaal gi taxaw ci taatu géej gi am na lu mat 30 minutes nee nañ yoo xam ni sëñ Tuubaa génnut waaye tubaab yi rek ñooy génn yi bàgg di dugg di def ñi dem ak a dikk mag ñi ñu ngi werante eh, sëñ Tuubaa ñëw na ñii naan ñëwut nu mu moom lañ indi déedéet nee na bu mu yàgg benn tubaab doo taxaw ci taatu ci escalier gaal mujj daal di ana Cheikh Anta maam Cheikh Anta ni ñoo kerte ca gannaaw mbooloo ma mu ne ko kaay wuyu sëriñ bi loolu bi tukkee ba ñu Cheikh Anta ko njëkk a gis ndax moom lépp la indaale maanaam fàttewu fa gaalam am bu mu xottikuwu fa fàttewu fa kaalaam saalitu fa kurusam tegu fa dara lépp la indaale woon te ay gaal yu bëree bari la woon te daana toog installé ba noppi ñu ni ko jógal nga xam ne suñ bu dee jóg day boole yanu gaal yi yii mu takk ko ci ndiggam yii mu roof ci loxo yi lu ne ba mu diis gann waaye du fa du saalit lenn fenn moom nattu du dikk ba mu saalit waaw bi mu bi mu wàccee rek mu ne kay wuy maam Cheikh Anta maam Cheikh Anta bi ngi ko fekk mu toog ci tiim bagage yëpp waaye bi ma ko joxee la ko dani ma seex ma ne ko mbàkke mu ne ma seex ma ne ko mbàkke mu ne ma seex seen dem na ba dikk defu moom defu fa lu rus koo nekk lib taalibeem seex waat naa wàcc naa wàccaay naa ko ma yaakaar daal ñu jokkee ni ko seex bisimilah keroog bi mu taxawee nag da waxut ni li dañu yàlla jëmmiltu yaa jëmmiilu xaama ka sasi maa xat jalal jëmmiilu xaama jey sasi kon waxugut ne li ma bëgg am naa ko dañuy jëmmiltu yaa ma taaral yaa jëmmiilu yow mi nga xam ni ko taaral mu rafet yow koo taaral mu rafet xaama kasas yi mooy at mi ma ñibbisee muy kasas waaw bi ma fiy jógee di tukki ni ma meloon bi ma ñibbisee da nga koo gën a yeesal maanaam dolliwaat nga mab taar xam nga dolliwaat nga mab taar bokkul ak li ma bëggoon am naa ko mm-hmm. maa xat jalal jëmmiilu xaama jësi moo tax seex saadi bu da seex saadi bu da ko wax ni ko wa badrun mun niirun xaaba fil xarbi zummalah wa fil xarbi zamzan rifxatan wa intisaara loolu seex saadi ko bind naar bi ci gànnaar dana Sëriñ Tuubaa bi mu fiy jóge ci tukki da ngaa mel ni biddiw buy ko waaye bi nga ñibbisee da ngaa mel ni jant bu yëkkati ko ba ci diggu njolloor moom loolu la wax Sëriñ Tuubaa kon biñ ko andee tubaab yi gisee waat ñooñu nañ ko génne waat loolu lépp nag booba li am da ko li bëgg da koo amakut rek. booba jaar na aw yoon njëriñ waaye dafay jaar jàll sañte gu ko woon. dafay jaaroon rek waaw jaaroon na fi nag aw yoon jàll ba doon wax naan suufu njëriñ mi ngi jooy nang waaye sànc gu ko woon tuba njëriñ tubaab yee fi indi ci seen pexey bopp waaw bi mu fi bi mu jógee ci géej gi 1912 13 12 12 a gën a leer 12 12 la fi ñëw waaye kër gi moom 13 la ko sañ ba 12 bi ñu ko ne ñu ngi ko tegoon ca école bële ci boo dee dugg ci dëkk bi foofa lañ ko wàccoon waaye nag 13 la sañ kër gi moom mhm. waaw bi mu ñu daal di waat muy yoonu gànnaar wi ñu ne nañ ko yóbbu gànnaar ndax gànnaar buñ ko fa yóbboo yoon wi sori na mag ñi duñ fi mën a dem ñaar mooy gànnaar boroomi xam-xam fa nekk ay wàlliyu bu demee mën naa am dana am complexe ci seen kanam na nga nekkate gànnaar suñu tubaab yi wax moom foo ko yóbbu yaakaar ni fii lay fii lay nëbboo fa la ko yàlla yi gën a feeñale peut être bi mu demee gànnaar naar yi seen bopp suñu tubaab dina jaaxal naar yi naar yi waxuma naar yi ponkali naar yi nga xam ne ay wëlli yu leen ñoom suñu tubaab dina ci ci biir fi même boo seet xasida yi suñu tubaab yi yi mu wayee gànnaar yi mu wayee gànnaar maanaam da seet ni maanaam luqa beeg nahu beeg arab pire la ciy indi ngir ñoom seen nan nan mel bokkut ak kiimaan yam fay def ak yu mel noonu ba ci wakkaana xàqan mi bi sëriñ bi bi bi bi tubaab yi bi naari gànnaar yi demee ba am at moo xam ne jaaxle nañ seen tur yi ki nangam ak nangam biñ dikkee seen tubaab dañoo egsi rek sëriñ bi yëkkati wa kaana xaqan jox moo tax ma xamaa bilaa dina añil xitaali wa kaana xaqan xalay nal jiddaali foofa la foofa la ko taalifi ak yeneen ak yeneen ba am fa juróomi at def fa lam fay def gannaaw bañ fa jëlee mu ñëwaat seen jolof am fa ñetti at gannaaw bi nag la door a dikk njaareem njaareem it booba tubaab yi ñoo jaaxal seen bopp ñoo jaaxle léegi nañ ko yóbbu njaareem ndax Sëñ Tuubaa xam nañ ni tëna moom mënatuñ ci moom dara waaye nag njëriñam dëkk bu mag la dëkkum nangam la buñ ko fa yóbboo xaj na ak njabootam taaxi yi yu mel noonu xam ne moo tax ñu indi ko njëriñam nag muy 1912. biñ ko indee ñu ngi ko wàccee école boobu ni may ko waxee gannaaw bi nag kër gii ngay siin ak lii moom Sëñ Tuubaa da koo waaw waaw bi Sëñ Tuubaa sancee njëriñ 1912. Mhm. parce que kaamil bi cosaan li daa a yàgg. ndax Sëñ Tuubaa dafa wax ni daa am bis boo xam ni yàlla daa yëkkatib nattoom xam nga yàlla day boroom sañ-sañ jëmee ko ci jaam yi te Sëñ Tuubaa jàpp ni natt bi bu see jaam yi bari danañ ci lool Sëñ ni yàlla teg ma nattu bi ma yenul ko mbindeef yi yàlla ni ko loolu dana ci tuuti daal ni ko bu fekkee man nga maa war lul bis bu set nga jàngal ma juróomi kaamil ma ma teggi nattu bi maanaam waxtu julli wu ne ànd ku kaamil Sëñ Tuubaa ni ko attan naa mooy saa bus daaree mu yegg see njëriñ nag 1913 1912 lañ ko fee indi 1913 nag fekk nag gànnaar gànnaar la Sëriñ Tuubaa waxoon ni li ma bëgg am naa ko waxoon naa ñu ne fépp fépp waxut li ma bëgg gànnaar la Sëriñ Tuubaa bind li ma bëggoon lépp yàlla jox na ma muy xaama dak sa sin xat xuttalii marumtu xaama dak sa si kama uhibu rabbi xaama ay sa si kulliyati jamiltoha min dak sa si bi sukrima min jay sa li jak sa si dak sas moom foo ko fekk rek xasida yi goo ci yor dak sas moom day wax ne am naa nangam sant naa nag waaye moom day mel ni fala bu doon koy fala plafonné woo kon njëriñ bi mu fiy dikk fekk na mu fees dell moom ba dara xajatul moom fekk na moom li ñuy am ci yàlla lépp mu mu yegg foofa li ñu yeggsee nag 1913 ci la rëdd daaray kaamil ji ngeen toog sëñ bi moo ko rëdd toog ci digg bi woo Cheikh Rafal mu dikk mu ne ko sengal ma ko Cheikh Rafal sang seng ko sëñ bi tànn ñaar fukki mag ak juróom ñaar fukki mag ak juróom boole ci jëmmi boppam moom sëñ bi ak Cheikh Mouhamadul Moustapha ak El Hadj Fallou Mbacké daal ni saa borom soxla na dénd bi waaye dama rus saa barab bi na ngeen saxal bis bu set juróomi kaymil saa yu ngeen xëyee te jàng leen ko nag àddina tukki daal ni fu nit mën a nekk ci àddina jàmm ja muy am sama juróomi kaymil lay boo ni ba ca tubaab ba ca tugal daal ni ku ko xamoon te lu mu am bokkoog yéen am benn bis sëñ bi di euh, tubaab bi di ko koy lempo sëñ bi woo sëñ Mbay Sarr mhm. woo woo sëñ Balla Coro di ko bindal ma sama njaboot sëñ Balla Coro dem bind sëñ Mourou Moustapha sëñ Fallu ak ñam foog sëñ bi ni ko du noonu mu dem bind soxna fët ja soxna may nangam sëñ bi ni ko du noonu mu ko kon sëñ bi ni ko ñuy jàng sama kaamil bii su ma doon ak njaboot teet na ñooy sama njaboot sëñ Mbay ni ko gannaaw ñooy sama njaboot boole ma ak ñoom ma yor leen mhm. sëñ bi ni ko déedéet Babacar Sarr ñi yàlla képp laa leen di booleel waaye du ma leen boole kuñ bind waaye aji bind ci laa leen di boole boobu Sëriñ Tuubaa day xam ni kiñ bind dafay joge te yàlla du fi jógee ndax Sëriñ Mbay Sall jógee na fi bu yàgg waaye yàlla jógee wu fi fi doon kaamil bii di ko jàng ala kulli haal ñi fi nekk Sëriñ Tuubaa dana yebal mbindeef moo xam duñu xam fu mu jógee mu dikki def fi teraanga yoo xam ne kenn du xam fu muy jógee dimb am na ñu fi indi ceeb bu bari tey jii am na koo xam ne waa daara kamil ñëpp la xottal ay jas ne ba jox leen xaalis bu ñëw loo noonu la sëñ bi lijjantee mbiram waaye kum la booyee kooku lay jeex te yàlla du jeex te kii dikk doo xam fu muy jógee waaw fii moom kaamil bi ñuy jànge moo fi nekk ak xasida gi ci teg muy tey sirul xasir ndax it kaamil bi ñu koy tàmbali suñ tuwaa daan def ay ay ay uh, xatmu yu bëree bëri am na xam ne ni am gànnaar defoon na fay noo lëg taab na sun am na fu mu defee iqra wa rabbuka waaye mu egsee ba ñëwee nag bale ba nekk si 1926 Sëñ Tuubaa moo moo jël Taysiirul Asiir Taysiir Sëñ Tuubaa moo wax ne bi moo koy bind ma ne ca sama xel ma damaa bëgg a def a'uuzu billaahi mina seytaani rajiim seytaane ni ma man bàyyi bu ma tuddee tooñ ma joteetuma ak yow dara dara dara man baama baama rek Sëñ Tuubaa moo tax xasida gi amut a'uuzu yaa bi may bind ba ci bi kulli harfin min tihil huruufi bu saaratan yéen moo bihaa mahruuf yonente moo jàpp ne ma baax na moo tax boo demee cosaan moo ko jël xaaj ko juróom benn xaaj mu yallaahu yaa man laa ilaaha xayruhu salli wa salli man yaa musabiru ak wasalli yaa raafihu ak wasalli ak ak wasalli yaa xasibu ak wasalli yaa muhyi ak bisharhi watiini way juróom benni xaaj moo ko jëlal ci loxo moom xaaj ko maami sëñ bee toog muy sëñ ma jëmb si la sëñ Musaa mi toog maamam seen kër a ngi fii foofa la sëñ Tuubaa tànkam ba yegg daal di yëkkati tey jox ko sëñ ma jëmb ni ko mujjëm mu ni ko mbàkk mu ni ko saa borom danaa mayoon alxuraan bayit waa nga ne mala kañul xuraan tam li kañu doo maari ki jaxal lañu laful xadim si ma nga ne ngeen di seen bayit wee suñ tuwaa ko bind saa borom danaa mayoon alxuraan waaye ma jëmb damay bëgg a tukki bëgg la koo dénk daal ni ko na nga ma te tëyal daal ni ko ma jëmb na xat mu ba ne def naa ko waaye bii ma lay jox ci ngeen di jàpp keroog ngeen may fekk ngeen may fekk si du ko sofia mooy tey sur asir boobu ba léegi nag fee dakk 1913 ba nga ni barab bi su fekkee jàng fi juróomi kaamil bu ñu xëyee danañ jàng ñaar bu tisbaaree ñu jàng benn bu takkusaan ñu jàng ñaar loolu mooy cosaanul daara ji ba fi mu ngi dox waaw lu Sëriñ Tuubaa waxoon yàlla leen di booleel loolu yàlla dogal na moom njabootu Sëriñ Tuubaa ku fi nekk loolu da ko bàyyi xel ndax Cheikh Mamadou Sa bi fi nekk daana dox ca loola bi fi Sëriñ Fallu nekkee daana dox ca loola di jël tiraanga yi am di ko indi daaray kaamil Cheikh Abdoul Ahad bi mu fi 45 la la fi sëñ Fall toog 68 la sëñ Ablaat toog mu fi toogee 68 ba nekk ci 1969 daa am bis boo ne sëñ Ablaat daa xëy woo Baye Soulay ba mu dikk mu ne ko boo demee neel sa Baye Aliou Gadiaga seen kaamilu takkusaan boobee lu yàgg-yàgg boo kenn tijji maa koy tijji mhm. ñu dal di ko wax ko Baye Aliou Gadiaga boobu moo jiite daara ji mhm. ñu toog jàng du takkusaan ba noppi di nekk sëñ Ablaat ba mu xaw a yàgg ba jant bi xaw a sori sëñ bi door a dikkal bi mu dikkee mu daal moo si jaar damaa jaaloon ko suñu Ablaay Fall Ndor moo tax ma xaw faa yàgg dal di laaj bunt bu ñuy jàng tey ci tey siir ñu ni ko salli wa salli ma ne ama sawir sëñ bi jàngal ko boppam sëñ Ablaay doomi sëñ Tuubaa laa la wax te boobu mooy sëñ Tuubaa daal di julub jukki jàng ko daal di jàngaat bunt bi ñaari yoon ni ñu koy defee jàngaatub jukki daal di jàngaat buntu tëj kaamil bi daal di làmpoo sam génne ñeen fukki junni te jamono yooye waaw daal ni damaa bëgg a waxtaan ak yéen waa daaray daal ni waxtaan bi ñett kepp la muy bopp ndigg ak ay tànk daal ne bopp mooy mag ñi fi Sëñ Tuubaa bàyyi woon digal leen liggéeyam bii yéen du ma leen digal du ma leen tere da leen Sëñ Tuubaa digaloon mu dugg seeni nopp bu fekkee yéen a nga ca xam ngeen bu ngeen ko sàgganee xam ngeen boo léegi yéenay fekk Sëñ Tuubaa loolu yoonu Abdoulahat nekku ci moom ah loolu leer la mm-hmm. daal ndigal li mooy mag ñooñu am na ci ñu fi jóge ñu teg fi seeni doom doom yooyu la ma leen digal mooy la seen bàyyi nekkoon suñ tubaab digal leen ko lan ca jàpp ndax nit ku ne lam leen dénk bàyyam lu man lu mën di jàpp lan dénkoon bàyyam jàpp ko moo ko gën ci moom daal li ñu ci tànk yi mooy am na ñoo xam ni bokk suñ tubaab bàyyiwu leen fa seen i bàyyi sax bokkuñ ci dañ leen xool ñuy ay gone seen loxo set boole leen ci daal ni gone bu loxo yi set ne mën naa bokk ak mag daal ni waaye ñooñu la ma leen digal mooy gone daal bu fekkee mag ñi di course départ départ ca suba mu nekk ba tisbaar mu door a jóg bu bëggee dabe bu takkee ndigam ba fax du taxaw du àttandiku daal ndax bu taxawee te ah mbaa mu àttandiku rek du jotee ta te mën nañ ko raw daal loolu rek lay wax ak yéen daal di yëkkati ñeen fukki junni jamono ja daal di du ma leen wax ne weer wu ne man fay lii nangam waaye lu ma am danaa ko bokk yen da daal di su ma demee danaa yónnee ña danaa yónnee téeméeri bëri koy bépp boobay noonu la fi nekk moom sëriñ Abdoul Ahad ba yàlla dogal mu appliqué jeex mu mu jóge fi sëriñ Abdou Khadim mi fi jot jaar jaar na ci loolu Serigne Saliou nag moom waa daara jëpp xam nañ ko moom bañ na ko ba nag xari Tabaski sax bu ko daan tànn daa wut jël rek ni nan yëtu waa daara yi kaamil nangami xar déedéet day jël ab siège toog ñu génne xar yëpp di tànn xar yu toll nii nag la fi daan indi te da koy peinture bu mu jàdd fenn bu ma fii ñaar téeméeri bi di koy pepp day wax ni subaa bu subaa dugub bu subaa ceeb bi ñëw bu subaa mu yónnee ñaar téeméeri bi di koy ay dàll yónnee na leen ko xorom lu ne ci àddina lu nit di jëfandikoo rek sincère bi dugal yi moom ku mel ni moom moom mësta fii te yaakaar naa dootu fi gaawate bi mu fi jógee it loola mooy wéy suñ baara di dox noonu bi mu fi jógee it Cheikh Sidil Mokhtar jot feejaat def noonu Cheikh Mamadou Mountakha mi fi nekk yàlla na yàgg te wér loola it mi ngi koy wéyal ba tey ndax jamono yu ne waxtu wu ne saa su ne weer wu ne aw ñax aw mi ngi yëkkati waa daal kay mi di fi yónnee ay yëfam di ko fàttali ko xarit tabaski lépp ni ko mag ni ko ñi ko fi jur doon de noonu rek la kon la suñu tubaab waxoon rek mooy li am ci daal kay mi yàlla laa yéen ba yàlla du fi jeex salli dawama wa zid salama li wa binaay ya zal irada يا ذا الإبادة قل السعادة لبيعتنا xëy ngeen ñëw ñëw ngeen ci béréb bu tedd béréb bu nga xam ni euh, mën nañ benn béréb la ci kaw suuf ndax euh, foo xam ni sëñ Tuubaa euh, dund na fa fukki at ak juróom ak ay weer mu ne fi di fi jaamu boromam di fi dimbali jaami loolu fii rek la nekk. mooy dëkk bi nga xam ne moom da mu daan wax na ramo ma siri ilaan Jurbel la daal las tin law an yoon sirra ma fi siri ma ramo kon bér bi ñu nekk nii nag tey ñu ngi leen dal di leen euh, dalal jàmm yox bisimilah fukki juróom ak ay weer jàkk ji ñu nekk nag ñu ngi fii ci biir jàkk ji nga xam ne tey mooy jàkk ji mu daan jullee waxtu juróom xam ni tey li ñu naan fiñ bi dafa xamoon ay devoir am xam ay droit am loolu moo war a gis ngi ci biir këram ndax daf fii bi mu fi ñëw résidence surveillée la fi ñëwoon waaw moo tax moo tax ci biir këram bi mu ñëwee jàkk ji li fa jëkk bi mu ñëwee ba dal ci kër gi mhm. rëdd fi def fi këram jàkk ji li fa njëkk taxawal mhm. mag ñi def ko mu def ko benn dóor dóoru maanaam sàkketu ngeer mhm. lañu njëkk def daara ji waaw mu dem rëdd lu nig be mooy nig ba mu wàcc liggéey le 19 juillet 1927 nee na maam Cheikh Fall wala sëñ Issa Diagne am na ku mu ci takkuloo woon nig boobu waaw waaw dem bi nga xam ci la dal ndax mi ngi ñëw dëkk fii le 15 janvier ci la ñëw ci la sanc fii kër gu mag 1912 dafa ñëw waaye neuf premiers mois yëpp mu ngi ko def fare ci résidence fare ci ci ci ci kër commandant bi mhm. foofu la nekkoon mhm. waaw mais nag fii nag boobu fii yëpp àll la woon mhm. fii si di fi wéetal boromam waaw foofu dafa jógee dafa jógee kër kër commandant bi euh, euh, te mbooloo mi saa su nekk ngi gën a bare tubaab bi nag ni xam ne foofu àll bi foofu fii mu ne ko boo bëggee nga ñu may la nga dëkk fii kon mi ngi sanc fii le 15 janvier 1913 la dëkk sanc fii bi mu ñëwee nee naa jàkka ji la fi jëkk taxawal ñu def ko néegam boobu nga xam fi la wàcc fi la mujjee ci kaw suuf sampalu daaree kaamil waa loolu lépp ci ci ci ci 1913 euh, boobu ci la xewee woon fii waa waaw fii mu doon mihrab bi fii nga gis nii fi ñu def benn géej bi nii foofu moo doon foofu la daan taxaw moo tax suuf si mu daan taxaw di jiite mbooloo mi sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fall bi muy yeesalaat tabax bi di dindi barak bi di fi def tabax bi moo tax mu bàyyi fii mu warmaal bërëb bi nii ngeen ñu ci barkeelu kii nag moo doon barak bi nga xam ni photo bu siiw boobu ñu xam ñëpp xam ko mu taxaw nii taxaw wéeru taxaw ci barak bi barak bi fii la woon waaw 1968 nag la sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma dindi barak bi daf tabax bi yokkat ko tamit moo gis flanc côté bu ci nekk daf ko yokkaat na ci ay quelques mètres waaw noonu la ko defee waaw sëñ bi sëñ bi bi mu nekkee ñëwee fii pakk bi ku baax ku nekk fekk nag waaw waaw malaaka yërmande malaaka muharibina yi ñu baax ñi am na ñoo xam ne sax ñoom wëy su xaree nuyu mag ñoo nga xam ne ba ñu fa ba ñu làqoo yàgg na sax ñaan nañu seen borom ñu fekk fii si si pakk bi pakk bi moo tax mu ni fii jaamu na waaw waaw moo tax pakk bi benn béréb la ci kaw suuf waaw mi kër gi nag mi ngi nekk ci kilifteefu tey sëñ Ahmadou Mokhtar borom Daaru Xudóos waaw moom mooy mooy yilif mooy mooy xalifa Daaru Xudóos mooy rakku sëñ Muntaxa tey mooy yilif kër gi yëpp tey ci loxo la nekk bésu bésu dibéer dimanche ci suba dafañ mujj ji julli dimanche suba la fi mujj julli Sëñ Tuubaa fii la doon gàmmoo tamit bu daan def gàmmu ci biir jàkk ji fii la doon gàmmoo mm-hmm. waaw waaw waaw màggal tamit fii daan fii daan bernde di def lépp lu mu daan def fii daan def ak diggante di bernde waa daara kaam yi lépp fii la ko jëkk def fii ci ci kër gi mm-hmm. waaw fii daan toog tamit joxe ndigal ñu tabax jumaa ji mm-hmm. waaw waaw moom laa wax ni fii la fii la joxe ndigal ñu tàmbali jumaa ji mu génne fii dem teg doj bi foofu euh, le 11 mars 1918 la t pose première pierre bi 1924 jumaa ji àgg mu génnaat fii dem inauguré ko waaw waaw waaw waaye nag mosu faa jiite rakam mooy li ma la wax rek sëñ bi dafa xam comme xam na li dafa xam li ko war waaw ak li nga xam bi mosu ko ko ni lu tax nga def lii parce que dafa xamoon xam leen lu ci nekk rek ñoom parce que tubaab bi jay gi leen yàlla jay tamit daf leen ko nanguloon waaw nga xam ne tey eh, li nga xam ne ñoom moom la ñuy tere lépp da xam du yàq jaamu yàlla ci leen yoon daf leen ko nanguloon ci ñeen ñëw it mooy kër gi sëñ Tuubaa dëkke woon fukki at ak juróom nekkoon njaareem ma nekkoon kër boppam léegi cosaane bu fukki at ak juróom yi wax na sëñ bi dafa wax ne yonent bi salaam la sa woon fukki fan ak juróom léegi bi mu ngi si biir xam na maanaam da ngeen war a jàll am fekk moom fukki fan ak juróom fukki fan ak juróom sëñ Tuubaa ko fan mu am at maa waral fukki fan yi juróom sëñ bi daa xaajoon kër gi def ko ñetti xaaj kërug boppam kër yonte bi sallallahu taala alayhi ak kër yàlla suñu borom fii ngeen nekk ci kees gi ba ci jàpp ni ba ci jàkk ji lépp ci dëkkuwaayam la la bokkoon bu dee li tàmbalee ginnaaw jàkk jëm noonu ci néegu rasulullah sallallahu alayhi wasallam foofu mooy kër yonte bi ñi xejjoon ci kër gi ñoo ko daan fekk tàmbalee nag ci ginnaaw néegu bi jëm ca biir nag ma nekkoon kër yàlla suñu borom boo fa masaan far fii génn kenn doo ko fa fekk noonu la kër gi tëdde woon néeg bi rek wax na ne moo nekkoon néeg bi mu féete woon ci kër gi kër gi bari woon nay néeg lool waaye moo ci nekkoon dëkkuwaayam ba moo sabab sax bi mu waajee bay sopp jëmm ji dellu ca boromam fii la summi ko ci néeg bi ngeen di seen nii fii la fi la fi la waaje dellu ca boromam fii la ko Cheikh Moussa ak Cheikh Amadou Bachir jële yóbbu yóbbu yóbbu yóbbu Tuubaa gaal yi juróom-ñaari gaal woon yoo xam ne ñoo fi nekk noonu ak moom yoo xam ne ay bagages ñoo ci ne ak euh, basangu romb jaan basangu nag mi ngi ci biir waaye dañ cee lal lal lal lal lal lal moket yi xay gi moom sëñ Tuubaa ko jëmbataloon bi mu ñëwee moo ko jëmbataloon boppam daan ko soxat teg sataram wax na fii la ko sunu borom njëkkee mosal meññatum àjjana am na jataay bu siiw sax bu ni faral di wax ne sëñ bi daana ko defee waaye bi ci gën a siiw bokk na ci wax na na xëy dajale na fere yi ban daje mu wax sëñ Mahamadou Lamine Diop Dagana na ko ndax fere yi daje na mu ne ko ni ëpp ci ñoom daje nan boobu sëñ bi ngi toog ci taatoxay gi sëñ bi jàngaloo ko bopp bàqara aaya bu mu ak si sëñ Tuubaa ne ko xiif mu taxaw wax ko melaw jullit fii di ko melaw melaw nafiq melaw kéefër daal leen di wax ne dama leen bëgg a xamal ne yàggandiwu ma jamono ndax xëy gi maa ko jëmbatoon ci sama loxol bopp mu xëy màgg ba tiim ma kon yàggandiwu ma fi ci jotaay bi ñaari sëñ Abdou Samad boobay tuut tànk la ña nga fa toog kenn ki sax sëñ Abdou Samad kenn ki këram yi ci biir penku jumaa ji ma ne ñaari sëñ Abdou Samad ku ci nekk sa waajuru jigéen maa ko joxe woon kër ba mata ba ñu dem kër ba ñoom ñu sos ci ba mata dal jàng kon yàggandiwu ma fi daal leen di dénk li yàlla digle tere leen yàlla tere ñaanal leen ñu yewee wax na na ba mu jógee jataay boobu julli dellu dellu si ci néeg bi waxtu jullee koy génne dem julli moo koy génne ci néeg bi dem julli ji bu noppi dellu siwaat yaakaar naa fan yooyu ci rentoo koy fan mu jee xam ci moom waaw muy waaw waaw mu dee ko jàkka jooju mu nekkoon waxtu juróom yi yëpp sëñ masaan génne bi ci néeg bi foofu la jullee waxtu juróom yëpp bu noppee daara kaamil romb ngeen ko mhm. daara ji bi fi sëñ bi ne kër gi daa daa ëmbaale woon daara ji te lii bii fi ndool ci biir kër gi la wax la sëñ bi randale kër waaye kër gi ci biir jumaa ji kër gi ci biir ci biir kër gi la jaar nee na sëñ génn fii ci ci néeg bi day dem jàkka ji julli waxtu juróom bu noppi dem dem daari kamin jàngi ci day jërub jukki ndax daa sàkkoon ñaar fukki mag ak juróom boole ci boppam ak Cheikh Moussa ak Cheikh Moussa Fadal ñoom ñett ñoom mokk ñoom mott ñaar fukki juróom yi muy 28 waxtu julli wu jot nu jàng ñu jàngu jukki sëñ bi daan wax ne tubaab ba ca France toog ci roon comptoir da jaay muy jar jàmm jàmm am bay jaay muy jar bu ko yéegee bu ko yéegut sama kaal bi lay jógee naar ba ca gànnaar jiitalu giléema mu topp ci ginnaaw na mu ko soobee jàmm jam am bu ko yéegee bu ko yéegut kaal bi lay jógee wax ne waxoon ñi ko daan jàng ne moom ñooñu suñu borom leen féetale nangu loon kenn yor leen ñooñu ne dipp bi sëñ ba léegi lim boobu ñu jàng lu manqué ku fi jógee ñu xool sa njaboot ku la a wutu ñu wutal la la bu la njaboot gi bu fi njaboot gi béykat kenn mateewu ko ñu doo wut keneen mu waaye lim bi moom du manqué loolu mooy seen mooy mooy seen bu liggéey waaw loolu loolu moo xam naa mooy ci gàttal mooy taarixu li nga xam ne xam nañ ko ci diggante kër gi ak euh, jàkka ji ak ak daari kaamil jumaa gi nag sëñ bi moo liggéey ci nekkam ci teewam tekk xeer bi Cheikh Issa moo nekkoon jiital jëwriñu jëwriñu jëwriñu jiite woon liggéey bi moom moo négocié joon plan bi ba indi ko bi ndikee sëñ bi boole ko tubaab bi ko doon liggéey moom moo jiite moo ko moo ko jiite ci nekk sëñ bi doon ko liggéey ba mu àgg sëñ bee ko ubbi julli ci korité ak tabaski ñaari ñaari yooyu lañ mës a julli ay ji des yëpp nag ginnaaw genn ginnaaw ginnaaw bi bi sëñ bi ñu beetuwaa nag cërëm gu dumu bi nii di si julli waxtu juróom waaye bi sëñ bi nekk lépp nag jàkk ji leen daan julli waxtu yëpp waaw ba ci tombam yu siiw yooyu yëpp foofu la ko daan ci jàkk jooju waaw foofu la la ko daan voilà mbokk internautes yi gis ngeen euh, découverte bi nga xamante ne nii amaloon leen ko fii nga xamante ne nii moo di njaareem comme ni mu ko waxee woon rek ci ndorteel la nee leen kenn wax jaar-jaari Serigne Touba wala ngay wax dëkk yi nga xamante ni moo ko sanc wala yu mu sanclu te doo ci boole bërëb bu sell bii di njaareem boobee ba léegi nag ñi ngi ànd ak gis ngeen ko biñ ñëwee rek dañoo daal di dal ci kaamil bi nga xamante ne nii Cheikhul Khadim moo ko digle woon ñi di ko jàngee foofu ne nañ ci daaree kaamil gis nañ ci ànd nañ ci ki nga xamante ne nii amoo di Serigne Laat indi na ci nag ay leeral yu am am solo ak ni nga xamante noonu la sëriñ bi diglee woon woon boobule ah, kaamel ñu di ko fa jàngee bañ fa jógee nag daal nañuy dugg fi nga xamante ni moo di kër gu mag fekk nañ fi tamit ah, Serigne Daan moom tamit expliqué nañu lu baree baree bari ba fi nga xamante rek moo nekk sama ginnaaw di néeg bi nga xamante ni moom la ah, ku tedd ki daal di wàcceeb liggéey gis ngeen ko nag ay ngëneel yu bëree bëri moo fa nekk maanaam daal liñ mën a wax rek moo di Serigne Touba kenn xamul lu mu doon dañuy taay rek ci di ko wax ndaxte gis ngeen li nga xamante ni moom lañ fi découvrir tey jii nii gën naa wane ne ki nga xamante moo di Serigne Touba amul morom lii nag lañ koy defee ak yéen ndaxte gis ngeen ko niñ leen ko digee woon noonu lañ ko fas yéenee defee tamit ndaxte bi màggal gi dooree ba léegi mu di safar gi ba mu dugg see ba tey gis ngeen ne lépp loo xamante ne nii ay interview la ak ay reportage ak ay découverte ci dëkk yi nga xamante ne nii sëriñ bi jot na faa jaar ci yenn rek ci ay dëkk euh, jëm nañ faa dem lépp rek ngi satisfaire la yéen ñi nga xamante ne nii yéenay suñu mbokku internet 18 safar nag la ñuy wax te ku wax 18 safar wax màggal Touba te ku wax màggal Touba tamit wax Cheikhul Khadim ñuy ñaan yàlla suñu borom may ñu nag euh, wér guñ fa daal di yegg ndax la ci des rek daanaka ci ay fan euh, bëreetul ñuy ñaan nag ñëpp nag kattan ak wér-gi-yaram ba daal di mën a ñëw fekkee si bis boobee nga xamante moo di bisub ne woon na daal di koy santale borom moom ci ndam li nga xamante ni ah may ñu nag duñu jeexal mukk te sensibiliser wuñ mbokk yi li nga xamante ni nag moo di mbas mi lëmbe mim réew ndax gis nañ ne ren ji nag màggal gi dañ koy màggal ci jamonoy pandémie muy coronavirus mi nga xamante ni mi ngi wéy nag di lëmbe mim réew ñuy ñaan nag ñi nga xamante ni moo di taalibe yi ndax gis nañ ki nga xamante ni moo di Serigne Mountakha dafa def geste bu am solo di takk parce que fu mu toll loolu rek day wane ne bépp taalibe boo xamante ni da nga yaakaar ki nga xamante ni moo di Cheikhul Khadim da ngaa war a loolu takk loolee nga xamante ni moo di masque yi ndaxte moo ñu mën a may ñu daal mucc ci jàngoro ji ah di Covid 19 ndaxte génne nañ sax benn slogan bu bees tuddee ko takkal sa masque ngir roy sëriñ bi kon nag képp koo xamante ni rek ab taalibe nga ñu ngi lay ñaan nga takk sa masque ngir nga mën a roy sëriñ bi nii rek lay demee saa su nekk mbokki internet di ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ba beneen ak yoon incha allah